marché Louga arrêt Penda fay ku fi ñëw nag yaakaar naa ne lépp loo xam ne si am nga yaakaar ci ne mën nga cee faj sa soxla rek foog naa ne danga nga ko fekk boo ñëwee fii ci place bi danga nga fi fekk Baye Dame Niang muy man mii wala da nga fekk sëñ moorlo moom Serigne Saliou waaw mu ngi nekk fii ci arrêt Penda Faye euh, de établissement waa kër Serigne Saliou Mbacké ñoo leen indil bagage yi tey jii di leen ko wan di leen ko publicité bëgg nak ñëpp gis seen bop ndax askan wi lañ fi nekkal ak borom bitigi ñi jaay detaay ñëpp képp ku bëgg bagage rek bo ñëw fi tay jii yaakaar naa da nga am li nga bëgg andil nañ leen tay ji kerdan lu melni kerdan amna na pat poro euh, bi ngeen di gis ni moy appareil vap bi paaka mburu yi yaakaar naa da ngeen ko soxla lu melni ay coupe ongle likitu mat yi nga xamne mom mo ay ci matt yeeg mbóot yi fokk na ni ñi koy jënd ñu bare bari ci dëkk bi ko xam nañ ko xamé lañ ko bu baax baax bu ngeen ñëwee fi rek ñu defal leen ci xéewal bi it amna foroté bi lañuy wax foroté massage di foroté bu baax képp ku diwo ku nekk rek doto ko rëccu duru mbool yi amna yépp rek bo ñëw rek bo bëgg rek bo ñëw da nga ko fekk insha allah boros ada yi amna andi nañ leen képp bayu ndara kasu ataya mbomb yëpp am na ba ordre sewel andi nañ leen ay ndawal yi nga xamné yakarna nañ ne tabaski ñu bari dañ ko soxla ñu sant faal ak mbeng mom yakarna dañ ci mën lu bari <laughs> waaw paaka yeeg yep rek amna lu melna sabu kous kuus bàyyiwun dara daal lépp lu way soxla rek yakarna ni bo ñewé tay ji da nga ko fekk waaw lepp ngi fi rek lepp lu way soxla rek ñi ngi lay talal loxo di la ñaan nga ñew bo ñewé ñu jëflante ci jëflante bu sedd bu am dal te and ak xewal te ñaan lépp luñ jëflante rek yalla def ci barke te lepp lu ci way di sentu boko fi jëndé ba dem rek yalla nang ko ci fekk ñu koy ñaan gis naa fi am nañu ay clients waaw détail la ñuy jënd mais yéen da jaay waaw gros la ñuy jaay nag ndax xam nga mënoo jaay gros ba noppi di détail ndax boo ko defee ñi jënd ci yow di détail waat day xaw day doy waar waaye gros la ñuy jaay képp ku ñëw daal koo xam ne biti nga yor di jaay détail boo ñëwee fii ñu defal la xéwal yaakaar naa ne doo ak boo demee. Ah, pour yéen jaay waaw dañuy jaay ñi jaayaat ñoom lañ fi nekkal. joxe numéro waaw moom boo ñëwee yaakaar naa ne da nga fekk sëñ Morlo mom Serigne salio, yakana Serigne morlo Lo xam nañ ko morlo Serigne morlo Lo waaw mom numéro numéro téléphone moy 78 178 3660 bo woté ci numéro bobu jotto man nga ma wo man mi fi nek léeg-léeg lu ci bare bari ma fi ne euh, man nga woté ci 76 740 853 yakarna yaakaar ne numéro yi mom bo ci woté rek amna naa yaakaar pour nga gindé ko dana yomb. yakarna ne sax nak niñ ko niñ leen niñ leen niñ leen euh, indilee place bi ci marché lañ di waxee na amna na beneen place boo xam be mi ngi ci marché di marché police euh, benn place bi la ndax yaakaar naa li ñuy jaay fii rek moo fa am képp koo xam ne foofaa la gën a jege defe naa ne war ngaa mën a jàdd boo fa demee lépp loo fa am yaakaar ne da nga ko soxla rek da nga ko fekk yaakaar naa boo demee da nga fa fekk ku ñuy wax moom moo fay nekk lu bari boo demee da nga ko fekk moom numéro téléphone am 76 la 877 34 07 numéro Baye Serigne moo fa nekk moom boo ko woowee téléphone rek da nga ko jot bu ko defee ngeen jëflante kéem ni ngeen bëgg a jëflante.